turu AJS ñoo décidé tey organiser cérémonie bi euh, jagleel ko suñu mag suñu yaay suñu tante euh, madame Dior Fall Sow ñëpp sax tata Dior lañ koy wooyee mu di ko mag mu mën góor jigéen bu mën góor comme ni nga ko waxee mag mu mës a bàyyi ci réew mag mu baax mag mu yiw mag moo xam ne daf ñoo teg ci yoon bokk ci ñi nga xam ne ñoo sos ags bi mu ags AJS mooy deuxième présidente bi après madame maam Madior Boye mi nga xam ne moom moo bokk ci membre fondatrice yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo créé association bi. ah euh, Tata Dior nag di nit ku baax di nit ku yéwén di nit ku ku bëgg liggéey nit ku ku fonk liggéey nit ku am ay valeur di nit ku jororoy euh, daal ci ci gàttal. Euh, nekk ci suñu association nag di ñu teete nit ñi nga xam ne ñoo gën a féetee ndaw di ñu teete di ñu won yoon ci lépp loo xam ne xeex mbirum àq ak yelleef xaleel boobu ba léegi moom bay na ci waaram ah bay na li mu mën yëpp dëgg yàlla def na ko léegi nag ñun ñoo ci des ñun ñi nga xam ne ñoo ñu ñooy ndaw ñi war a continuer liggéey boobu ndax li nga xam ne moom la ñuy xeex muy àq ak yelleefu jigéen wax dëgg yàlla dafa di loo xamante ne des na lu baree bare liñ ci war a liggéey te moom jor Fall won nañu yoon bi livre bi nga xam ne nag moom la bind li ci wax fa ay jaar-jaaram ci mbiru liggéeyam fa mu yaroo fa mu juddoo fañ ko fa mu fa mu jàngee ak euh, lépp loo xam ne occupé na ko ci ay post yu am solo muy ci gouvernement bi wala ci ay yeneen organisation yoo xam ne au niveau international la yëpp xaatim na ko ci biir livre bi waaye boole na ci itam li nga xam ne moom moo xam ne moom la gëm muy xeexal jigéen ba nga xamante ne ah lépp loo xam ne àqam xam ak yelefam la dinañ ci mën a avancer du dara nag lu dul loo xam ne lëkkaloo ak góor ñi ndax ñun góor ñi ñoo war a nekk ñooy suñuy baay ñooy suñuy jëkkër ñooy suñuy doom donc ñu àndandoo liggéey ba nga xamante ne fépp fu jigéen war a mën a ta góor mën a teg tànkam rek jigéen te mën faa teg tànkam ci mbiru liggéey ak ci mbiru àq ak yelleef. fi mu nekk nii mooy violence yi violence yi dafa jeexul te xam naa ne du mës a jeex ga waaye dañu am yaakaar ne xëy na bu ñu continuer euh, di liggéey liggéey bi liggéey bi du dara dudul jéem a fexe ba gën a yar yar xale yi yar itam mag ñi yee leen surtout. ci li nga xamante ne mooy violence violence amul njariñ xeex jigéen dóor jigéen gaañ jigéen rey jigéen euh, bunduxataal ko xoqatal ko gëmuñu ne loolu dina tax am réew jëm kanam dañoo jàpp ne góor ak jigéen dañu war a ànd lëkkaloo ndax yàlla moo ñu boole ñuy ànd euh, góor ñi di takk ay jabar jigéen ñi di sëy ñu jur suñu njaboot ñu ànd di leen yar ci li nga xamante ne moom mooy war a jëmale réew mi kanam ànd di liggéey lëkkaloo ñu ñëpp dekk benn